dama leen wuy dama leen dama leen bëgg Sénégal fu waay mën a nekk man de bëgg naa leen asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna wërngal këpp mën la Queen di leen wax bientôt fii suñu kër ah ma nar ànd ak yéen émission wane ma 220 ah nee naa leen nag lu yëngala ko yëngala ko ëpp doole tubaar fakàlla macha allah xale baa ngi nii doomu séeréer baa ngi nii ku ci nekk daf ma daan gis ma yore micro daal di sa bàkk ku ci nekk di woy ku ma neex waaye léegi nag dama génnaat feneen xam nga nee na lépp aar la émission aar la fecc aar la woy aar la ma daal di ñëwaat ak yéen ci émission wane ma 220 nee naa leen nar na wàcc de tubaar fakàlla macha allah xale baa ngi nii. waaj leen nag bientôt man ak yéen fii du mësa yomb képp ku bëgg nag ma dalal la ci sama émission parce que Jeunes Talents yi laay war ñun ñëpp dañoo war a mun a jàppalante ci yoon ku bëgg ma dalal la ñu waxtaanee ku ci nekk ñu waxtaanee ci yi ngay yëngu yaa xam dangay mbalax yaa xam ne yaa xam dangay afro yaa xam bon genre musique ngay def te mu nekk loo xamante ne danga kaa bëgg nga gëm ko ma nar a ànd ak yow fii ci sama biir plateau ma fekk si la mbala nga fekk si ma lépp kaf la ree waxtaan dañuy soulager wu rek dara xewul képp ku ma bëgg a jot nag mbala nga bëgg ma dalal la mën Gaye Ndioro Bassimi danga may woo ci 77 410 48 40 47 mbala nga woo ma ci 78 221 06 16 ñu sàjj ma ak yow jàkkaar loolu am jom. yaay sama waay di faj sama xol ndax mbëggeel du foo. dëggalal sa bos bul xool ci sa poos yow tiyel la moom na leer ci nit ñi yow yaay sama pli bul xool ci nit ñi bla juma baby man bëgg naa la lu ma ci góobe gaar ko donte mbëggeel bi fa suul aras la woon démb li ma bëgg nga xam mooy que je t'aime li ma manque de mooy pour mu wax la je t'aime cette fois je suis calé oh, oh je suis calé et là je suis calé oh, oh je suis calé le galang boy avec son regard je suis calé mais risque conséquences yi je m'en fous je mag gaay mag sama gaay yi ñooy waxtaan ni dafa mel ni ku ci nekk calé nga de daal di leen calé ci Zara abonné ci suñu site internet ñu daal di béggalante wax amul dara du xew tubaar fa kàlla macha allah ndaanaan yaa ngi fi bëri lool acca leen sama gaay yi ñoo ko gisandoo. aboneel bul fàtte bés notification bi ngir ngay am suñu vidéo.